bismillahi irrahmani irrahim rabbi israh li sadri wa li amri wahlul uqdata min lisaani yafqahu qawli assalaamu aleykum wa rahmatullah ñi fas yéene waxtaane jaar jaari soxna jaaratullahi mariyaama buso soxna jaaratullahi nag mi ngi bokk ci askan wu tedd di askanu mbuso bi ñoom nag seen cosaan ñu ngi dëkkoon Fuuta Tooro ci dëkk bi ñuy wax Golléré waaye nag kii ñuy wax maam Hamad Ali nga xam ne mooy maami soxna jaara ndax wane soxna jaaratullahi Mariyaama Buso ma Buso Awa Mbaay mooy waajuram ma Buso Awa Mbaay mu sëriñ ma tabara Buso sëriñ ma tabara Buso maam Muhammad Ali maam Muhammad Ali mii nag moo bàyyi ko Fuuta Tooro ñëw Jolof bim ñëwee nag daldi ñëw ci sëriñ xob bi siise daal fay dal sëriñ xob bi moo ko dalal daldi koy jox doomam yu ñuy wax soxna kujja siise bim ko dencee mu daal di ciy am soxna buso ak sëriñ matabara buso soxna buso ñi jox ko maam maxaram mbàkke mu am ci ahmadu soxna buso ak sayer soxna buso kon dangay gis ne soxna buso mii moo boole mbàkke ak bi kon dangay gis ne mbàkke ak mbusoobe ña nga bokke ca jolof soxna buso mii moo leen boole sëriñ ma tabara buso moom daal di denc soxna suñuy wax awa mbaay am ci sëriñ ma buso awa mbaay sëriñ muhammadu buso la mooy waxi nun daan ne ma buso awa mbaay sëriñ ma buso awa mbaay mii nag dafa daal demaat ci kër ahmadu soxna buso daal di denc soxna astawaalo mbàkke am ci soxna jaaratullaahi mariama buso ak sëriñ buso bi sëñ Musaa Ka mi ngi leeral fii ci néegub soxna jaara mu ne maam astawaalooy ndey soxna jaara budul kon ak moom kenn du sampi daara maam ndumbe daanooy ndey astawaalu ku mel ni moom amul kajoor ba waalo maam daaru sàqe awa dikke kamara ñooy ñooy yaari maamam yàgg na fa cànqeen kamara faamata sow mooy doomi anta sàll yi yaari maam seen càllalaaka sell mareema jóob maam xawa ba maam jayla ja biitu tukkulóor moo am ngëneel am daraja maam yaa ngi wéy di wéy ba fuuta di diine gore leen